Cheikh Oumar Sy ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa fay. Euh, nga doonoon député euh, ci assemblée nationale tey nga daal di lancé benn pétition di ci ñaawlu euh, li nga xam ne mooy consensus gi ñu gis ci jëm ci élection président fédération sénégalaise de football tey ji lu waral nga ne déjà faux consensus la. tey boo xoolee ni wàllum euh, football sénégalais bi. Mhm. Euh, Augustin Senghor mandaam dafa jeex. mandat bi nga xam ne nag dafa jeex. mu war ko ñu war ko bàyyi ñu war a bàyyi ay candidat mhm. yu yu yu ku mel ni Mbaye euh, Mbaye ku mel ni Madi Touré ku mel ni Saër Seck. Mhm. ñoom ñu jër relais ñoom ñu ñoom ñu jël relais bi loolu nag loolu nag Augustin Senghor loolu la nanguwul parce que def na moom ñetti mandat mhm. Augustin Senghor nañu fàttali Sénégalais yi te moom rek moo fi nekk kenn koo xam ne def na ñetti mandat ci kaw euh, plus de quatorze ans ci kaw fédération sénégalaise de football mhm. kii di Omar Seck jiitu ko en deux mille deful sax presque deux ans teg ci Souris euh, Souris mhm. lan la def presque deux ans moom itamit la fa def jël Fakri jël trois ans la fa def mbay dooy ñëw def fa trois ans moom mu ñëw depuis deux mille na ba léegi muy quatorze ans Euh, warut a mën a taxaw ne moom dafa bëgg laajaat beneen et dernier mandat parce que moom ci boppam moo waxoon ne troisième mandat bi mooy de dernier mandat. Mhm. donc loolu warut a nekk lay pour moom pour ne day day am consensus consensus day fekk sax mu am xuloo seen biir xuloo amul ci fédération sénégalaise de football amul crise mhm. dafa mandat bi dafa jeex dañ ko war a renouveler dañ ko renouveler dans la démocratie et dans la transparence nit nag da nga war a sàmm sa kaddu mhm. sa moo doon ne doo présenté wu waroo présenté wu kon daal yéen li ñu li ñuul ci soow mi mooy Augustin Senghor. waaw li ñuul ci soow mi mooy mooy Augustin Senghor. Euh, mooy ne moom fu mu ne nii. def na li mu mënoon a def. Euh, na joxe lenge yi. Mhm. Euh, ñu continuer équipe bu bees bi ñëw ku nekk ci ñoom présenter programme. Mhm. mais nee ñun suñu programme dañ ko dajale. Mhm. loolu mooy échec déjà ça veut quatorze ans yi nekk da amuñoon programme. mais léegi dañu dajale nañ ko suñu programme ñun ñëpp candidat yi bu def ko benn programme. Mhm. xel nangu ko kon jarul ñuy élection présidentielle. na ñoom ñi candidat yi ñoom ñoo rangé wu derrière moom kon maanaam ñoom accepté nañu loolu. waaw mais déet dañ ci forcé. Mhm. parce que ku mel ni Saër bu taxawee ne condition moom mooy bu nekkee Augustin Senghor gagné Coupe d'Afrique en deux mille vingt un. Mhm. a dafa beneen crise lay indi loolu ñun tamit dañ ci am wàll am ci que suñ suñu xaalis. la ñuy lañ leen di jàppale pour fédération sénégalaise pour le football di dox. tey euh, pétition bi euh, doon ci yaakaar deux mille cinq cent signatures lan moo ci toftal. non ñun fu mu ne nii dépassé nañu deux mille cinq cent signatures. ci diiru ci diiru ñaari fan yi dugg ñetti fan yi am nañ fi cinq donc weesu nañu loolu li jëm kay fooy tey mooy signature physique bëgg nañ ci atteindre ba dix mille. Hmm. te ñu di sànni bataaxal bi fu ne. Hmm. nit ñi di manifester loolu tamit c'est pour wan ne loolu démocratie la doxalinu démocratie mooy askan bi ci boppam mu ngi ciy jox baatam ci doxalinu fédération sénégalaise de football danañ ci bindal CAF dinañ ci bind FIFA dinañ ci saisir conseil économique social et environnemental ak assemblée nationale. pour mm-hmm. ne rek Augustin Senghor ngir yàlla war a suul yi ñaan la ne ci ñekk ak teranga nga bañ a présenté wu nekk bul ci ñaaw leneen mën nga ko def nekk nga vice président à la mm-hmm. loolu liggéey la. ñu ñun si woote woon nañ ko sax mu nekk président de la CAF. Mhm. bu fa bu fa dëgëroon dem fa. bu consensus am xattu loon voilà. Mhm. mais euh, ba ba fii ba le sept. Mhm. lu ñu mën ko def. pour que combat bi ñu commencé. ñu eggali ko ba bës baa ñu xool lan mooy nekk résultat bi ñu nangu ko résultat bi amee. ndax am fii ak dinañu def lépp lu ñu war pour sénégalais yi taxaw ne tem ne Augustin Senghor tàmbal sa kàddu nga joxe pétition boobu lee doon euh, baatu euh, sénégalais yi waaye ndax am ngeen yaakaar combat bi ngeen xam ne sumb ngeen ko mu antu ndax instance yi ngeen saisir yépp ñoom euh, reconnaître nañu donc ci charte li nga xam ne mooy fédération bi ne Augustin war na mën a sampaat ndëndam waaw loolu charte bi reconnaître nañ ko mais moom ci bopp moo nee ne doyal na hmm. ñaar la mu mënoon ci football bi yëpp def na ko ñett dañu war a renouveler instance bi indi deret bu bees ci biir donc loolu weesu nañu ay kii bi nee nañu mën na mën na mën na dem mandat plus plusieurs mandats. kon contrat moral bi daal moom yéen ci ngeen. contrat moral bi dañ ko war a respecter au Sénégalais muy muy politique bi muy euh, syndicaliste bi. Mhm. muy ñi nekk ci football ñi nekk ci kii parce que sinon instance yi kenn du leen renouveler. ku nekk mhm. fi nga toog ngay nekk toog nocci di nas nga def ko se yëfu bopp alors que yëfu askan bi la. loolu moo tax ñun tamit mën na am ñu dem ba réformer ba laaj FIFA ak fédération yi. Mhm. que mandat yooyu tamit dañ leen limité. ba ñu nekk ay mandat éternel parce que gis nañ fi nu fi Issa Hayatou jógee. Mhm. ak ni mu fi ni mu mu ñaawee. Mhm. mais dañ ko fi jëlee. a un moment nit ñi dañu doyalee nee nañu moom Augustin Senghor moo ko nit ñi xeexoon loolu. donc yow mënoo xeex dara ba pare ñëw wëlbati ko di lu lu raw loolu xel mënu ko nangu. donc ñun tamit taxaw temm rek bañ Augustin Senghor du mun li mu téye mu mom ne moom par la force il faut que mu mandat ñun mhm. tamit dinañ euh, ñu jóge ci football bi ñëw ci koom-koom bi wax ci euh, rapport euh, bi nga xam ne mooy rapport d'évaluation budgétaire jëm ci dépense fiscale atu 2019 ñu fësal koo bu yàggul wax ne Sénégal daal bàyyi maanaam mu renoncer lu toll ci 750 milliards ci forme dépense fiscale mu doon li nga xam ne buñ ko méngalee même année bi gën naa wàcc daanaka. ci wàllum PIB noo ko jàngatee. waaw loolu xam nga tey. Hmm. Euh, boo ko xoolee ci dépense yi ñu dépensé ak ak exonération yi ñu joxe. léegi hmm. na tey parce que ci ay presque plus de trois cent trois milliards euh, trois mille cinq cent milliards. Hmm. ci li nga xam ne tey euh, dafa dafa dafa am li nga xam ne état bi bu koy génnee. wala buy joxe. yenn yi c'est pour inciter ay investisseurs bi ñëw. wala situation am comme ba fi Covid bi ñëwee. ñu jël ay ay ay ay ay matuwaay. Mhm. jël ay euh, nee na ñoom dañoo bëgg euh, dimbali askan bi ñu wàññi ay exonération exonération yooyu nag dafay nekk tamit lenn loo xam ne tey mën na euh, wàññi koom-koomu sénégalais yi mën na wàññi koom-koomu xaalis bi fi dugg. di mhm. fàttali ni yi tamit ne am na ay entreprise yoo xam ne ci li ñuy wax fonds yi di génn Sénégal plus de six cent milliards. Mhm. annuellement. day rëcc sénégalais yi loolu tamit ci situation pandémie bi day tax affaire bi euh, mu gën a tar mhm. tar bi muy tar mooy état bi mu ne recette am dafay wàññeeku mhm. xaalis bu mu soxla pour mu mën a euh, jàppale askan bi wala mën a taxawu économie am mhm. ko am moo tax ñu ne il faut que agglomération euh, yooyu état bi seetaat ko wàññi ko ba nga xam ne tey du ci gaañ boppam du ci gaañ askan bi parce que bu ñu fàttali sénégalais yi deuxième vague bi ak troisième vague bi ñëw état bi amul benn matuwaay social bu mu génnee ne daf ci jàppale sénégalais yi. Mhm. parce que amatu ko mënatu ko koom-koomam fu mu ne nii euh, li ñu doon wax tey ñu ne euh, ñu ne ne tey par exemple ne ñoom taux de croissance bi demoon na ba egg sept. Mhm. taux de croissance bi léegi ci presque mu ngi ci moins zéro virgule sept. Mhm. donc mooy wane ne tey suñu économie euh, pandémie bi def ko gàllankoor bu baax loolu moo tax exonération yi ñuy jox doon joxe. muy ci mine yi muy ci pétrole bi muy ci gaz bi. Mhm. war nañ ko xoolaat pour pour euh, pour euh, wax ci politique euh, jamono ji ñu ñuy wax ni révision liste électorale yi door na ndax décret bi daal nañ ko signe le 26 euh, mu war a tàmbali le 31 juillet ba le 14 septembre buñ ko dajalee maanaam ci xayma 16 un mois 16 jours la ndax li ni mel diir bi doy na ngir ñu def révision gu gu gu jéggi dayoo. nekkoon suñu sago loi bi loolu la joxe mais bu nekkoon suñu sago bu ëpp loolu. Hmm. mais tey li ëpp solo mooy naka la ñuy fexe ba xale yi dem bindu ji. dañuy hmm. tubaab bi dañ ne primo votant ñi nga xam ne tey bés bu élection bi di jotee dinañ am dix huit ans pour ñu mën a voté te xale yi bëri na ñu rey naka lañ leen di jàppale naka la ñuy fexe ñoom tamit ba ñu faciliter faciliter leen ñu dem am seen extrait de naissance. am seen hmm. carte d'identité mën a inscrire nu bindu ji élection ñoo ñu dem voté ji loolu dafa am solo. Mhm. naka la ci parti politique yi di jàppee naka la ci société civile di jàppee donc euh, am na liggéey bu am solo bu bu bu buñ ci war a def. ci mhm. ciy rafetlu nag tey mooy élection locale yi ñu jëm mooy tey euh, ñi war a fal seen i maire dinañu xam ne kan mooy kan. Mhm. tey Cheikh Oumar Sy la a Golf Sud. programme am ak gis-gisam pour Golf Sud waa Golf Sud dinañu xam. ne ah kii nañ ko voteel parce que lii ak lii ak fi teg. Mhm. mais buñ ko xamul woon comme avant conseil yi toog ba dernière minute ñu ne Cheikh Omar tab ah keneen génn koo xam ne ñu ko woon conseil yi ñoo leen ko ñoo leen ko tànnal. Mhm. loolu day yàq démocratie donc fii dañ ciy rafetlu vraiment consensus bi ci am pour que loolu mën a am mu ñu mën a feeñ mais la ca des nag mooy naka la ñuy fexe ba liggéey ba xale yi war a mën a bindu ci. et justement ndax amoo yaakaar ne dañ dinañ ko bâcler ndax déjà euh, dafa mel ni euh, boo mayul dinañu exclure ñi nga xam ne yoruñu carte d'identité ndax carte d'identité euh, doon na ay ponk yu ñu laajte ngir nga mën a inscrire ci list électorale yi te xam nañu fii procédure bi ni muy demee pour lu ay kayit am ay carte d'identité. waaw mais loolu laa wax xam nga tey par exemple ministère de l'intérieur mooy cee mooy gérer lu liste yooyu yëpp. Mm-hmm. donc ñoom tamit ñoom ñoo yi nga xam ne mooy defar carte d'identité ñoo yore dispositif bi gën a bi mm-hmm. war nañu mën toog liggéey ak gouverneurs yi préfectures yi ñëpp ñi nga xam ne tey war nañu jéem a xool techniquement naka la ñuy fexe ba xale yi war a mën a bindu te loolu tamit état bi daf ci war a jàpp bu baax société civile bi ni ma wax a jàpp ci bu baax parti politique yi jàpp ci bu baax parce que xale yi ñu leen décourager loo pour ñu bindu ci ñu indi ay jafe-jafe ci seen extrait de naissance ñu indi ay jafe-jafe ci seen i bindu bokk ci li nga xam ne tey mooy processus démocratique local pour ñu xam kan mooy ni seen i ëllëg. ah ñoo ngi wax ci euh, li nga xam ne mooy ponk yi ne commission yi inscription yi dañ leen di wàññi commune bu nekk benn ngay am. waaw mais dañu war a xool bu nekkee possible ñu gën a waxtaan pour ñu ko ñu yokk pour ñu yokk leen bu ñu leen yokkee loolu dina am solo mais loolu yëpp ci waxtaan la wara a mujjee. nga yaakaar ne waxtaan wi weesuñu ko. a ah, léegi baax ministère de l' intérieur moo yore liggéey bi. Mm. ministère de l' intérieur mën na fexe tey nee nañ ñu yokk commission yi. Mm-hmm. mais l' essentiel mooy ñu ñëpp taxaw dem rek war a u pour bindu ji. honorable ci say biir wax balaa ñu laa bàyyi am na lu ñu dégg candidat nga. waaw candidat laa ci Golf Sud man fu ma nekk ci Golf Sud. Euh, am na yeneen candidat euh, ndaxte am na ñoom Lat Diop am na ñoom euh, maire sortant Aïda Sow Diawara nee na Fatoumata Tall ñoom ñëpp dama di woo ñu toog. ñu ku nekk wax askan bi lan mooy sa mbëbët pour commune de Golf Sud. Hmm. lan pro ban programme nga am ak lan mooy sa gis-gis pour développer ko. nga wax a demee ci ban bannière euh, ci ban bannière nga wax a demee euh, mouvement. ñu ngi mettre en place benn alliance boo xam ne de l'opposition bi nga xam ne ñi waxtaan ak ñëpp taxaw taxawu Ndakaaru bu Khalifa Sall ñu ngi waxtaan ak waa Pastef bu ñoom Sonko ñu ngi waxtaan ak ñoom Malick Gakou Ahmed Aïdara ak ñëpp. Hmm. la nga xam ne war nañu mën a lëkkaloo nekk mais lëkkaloo bu warul nekk yem rek ci ñi dañoo opposé wu ñi dañu nekk au pouvoir ñu ngi xool ak société civile bi ak mouvement yi nga xam ne ñu ngi fa. Hmm. la ñu ñor rek mooy Golf Sud naka lañ koy développé ak ban programme la ñu war a jox askan wi wan leen pour que développement Golf Sud lu nekk une réalité. ancien parlementaire Cheikh Omar Sy ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup.